xamante moo di Ada Fass ak Guy gi mais laataa loolu ki nga xamante ne moo di Ama moo mujjee daan ki nga xamante ne moo di euh, euh, euh, Gris Bordeaux par décision médicale ndaxte Gris Bordeaux Ama Balde dafa fekk Gris Bordeaux Gris Bordeaux ci man-maninam parce que Gris fi ñu ko waxee rek daan Gris xeexkat la mais Ama da ko fekk ci man-manam dóor ko gaañ ko dem ci arbitre bët bee suulu par la suite ci la médecin jox ki nga xamante ne moo di maanaam Gris Bordeaux kii Ama Balde mooy victoire bi ma bàyyi la ci diggante ki nga xamante moo di Ada ak guy gi Ada ak Gouye Gui conflit de génération wala choc intergénérationnel la parce que mi ngi gën a jege bàyyi mhm. guy gi daaloon Ada dañ naan bon mi ngi continuer mais Ada Fass daan ko moo koy gën a yóbbu ci kaw mhm. day yóbbu Ada ci kaw mhm. mais mooy li ma la sànq rek Ada Fass bi ñu ko xoolee indi na constance booy commencé nañ comprendre ne lii métier la mm. lii professionnalisme la lii sacerdoce la et continuité la pour que ñu bëgg ci def carrière carrière du benn fan du ñaari fan da koy calculer sur benn dizaine d'années bu fekkee na ci sain et sauf amuloo feebar amul dara nga préparer sa bopp ci lépp pour mën a teg ay combat jéego par jéego di yéeg par échelon par step by step donc dañ gis ne indi na forme boo xam ne c'est normal mu ngi si mais continuité boobu mais tey round d'observation moom dafa yàgg. Mm. par rapport ak bu Liss Ndiago. Mm-hmm, mm-hmm. parce que fi mu waroon diriger combat bi am na nu mu doon nelawee rek mënoon na ko juumlu. Mm-hmm. dafa démarré mu yàgg il a fallu coach. mais xool seen xoolal forme guy gi xoolal forme guy gi. liggéey la laaj liggéey liggéey liggéey il faut que gars yi liggéey quoi vraiment. xool cuisse loo bëgg de du cuisse bi gisoo dara indiwul dara grande dorsale bi dafa flan yi génnul nga gis ne rhomboïde beeg deltoïde bi fi mu tegu amul dara comme benn mbuus nii rek. Mhm. il faut que ñuy renforcer musculairement te li nag pour nga am ko dafa mel ni ngay woyal woyal soow wala ngay congeler glace soo bëggee mu jàpp da koy bàyyi ci congélateur mu jàpp formant. waaw tant que yaa ngi koy dugal li génne rek doo am congélation normale soow tant que yaa ngi koy woyal. <laughs> soow tant que yaa ngi koy woyal. Mhm. te teguloo ko mu bañ a yëngatu. doo doo doo ci mën a am li nga bëgg. Mhm. et c'est important donc constance boobu moo ko moo may loolu Ada Fass mu mën a continuer ci ci loolu et muy gën a concentré wu de rester dans sa surtout même bi combat bi. surtout aspect mystique bi dafa bari trop. trop te mbër mu ngi préparer récupération. Mhm. ak entraînement bu ko boole ak aspect mystique bu bari. Mhm. dafay indi def parce que maa ngi dégg coach am gars yi bu ñu fay round d'observation bi gars kenn ah, ba arbitre bi joxe ku nekk deux deux deux kii di coach Ada Fass woo na ko guy bi nii. man bul ma rusloo guy gi boo dalee ci koom daan ko parce que mënoo préparer des combats des mois et combats nga ñëw ba fii di téye sa bopp te kii yaa ko mën. waaw loolu mooy li ma leen wax noonu rek round d' ak téye sa bopp bokkul dafa am mbër yoo xam ne boo defee round d' observation dañ lay juumloo nag mën nga bëgg ñu déjouer la doo teel a dugg si vif du bi wala nga teel a attaqué dugg seen garde parce que mbëri boole dañuy ñëw dañ lay xaaj surtout mbëri nga xam ne ay mbërëntaan la jamais ñu taxaw dans l'axe symétrique dañ lay xaaj xaajaat la désaxé coup bi saa yu jógee dañ koy gis wala boo leen dóoree du ñëw face bi nii soit dañuy esquiver mu dem wala ñu fent mu romb léegi nag round d'observation bu yàggee mu sax foofu dàq soo xoolee tabaage numéro 2 noonu la def maa ji maa ji jékki na daw <laughs> désaxé ko complètement parce que fi mu taxaw bu ko fa booy bu fekkee su ko fiiree wala mu dóor ko da koy jël mhm. xam na loolu arrangé ko il faut que il joue le guy gii bu fekkee daf bëgg continuer faraat tuuti wecc ci affaire yi na gën a yokkat entraînement mu doon lu constant chaque jour entraîné ji am sa deux jours de repos. mais pourquoi ñoom même génération bi gars yi lekk nañu weccet quand même lekk nañu lekk parce que depuis bi nii pour gagner des pour gagner xaalis. non mais ñu si bari depuis ak Covid bi avant sax. Gris Bordeaux mi ay temps daal nga fi dégg mu naan je prends petit déjeuner au lit <laughs> commencé di noos xam nga yooyu yëpp amoon na fi. ah oui parce que mbër la dafa am lu mu laaj sa <laughs> Eh, booy tàngal dara da nga teg fu tàng <laughs> déggoo ma de. Uh-huh. sooy tàngal dara. effectivement da teg fu tàng. waaw fuy tàngal waaw uh-huh. boo ko tegee fu tàngul doo mës a am tàngaay. c'est clair. yaram surtout athlète nga nekk ci carrière mooy comme joueur footballeur yi nga gis ku ci ñëw vacances topp noos bi ak kii nii nii saa yi ñu delloo seen club nekk ci méforme. Mm-hmm. parce que tu crois que ni les trois semaines yi ñu la may wala un mois da nga ñëw pour lekk nelaw cakaay baal yi ñëw toog non blow non non non non non. Neymar illustration la. xoolal Neymar xoolal yeneen joueurs xoolal ku mel ni euh, ay ñoom Ramos ku mel ni ay Benzema ay Cristiano Ronaldo. Hmm. même vacances dañuy ànd ak seen famille. ci hmm. plage bi ñuy entraîner seen préparateur physique. fay ko ay millions yu bari bari dañuy ànd ak ñoom hmm. utile ak agréable la. moom ngay boole. parce que carrière moo nekk lu complexe. da koy xool ci nelaw rek. nga bëgg nelaw bëgg a déglu musique bëgg wokkatu bëgg tëb mënul nekk. impossible nelaw soo ko bëggee def da ngay tëdd ko. nelaw ba doyal yow. Mhm. carrière sportive c'est la même chose parce que composantes yi ñoo bari dafa am lu bari lu mu laaj ci lekk bi ci naan bi ci programmation bi environnement bi esprit bi tranquillité bi. Mhm. ba pare nag sa yaram nga koy jox mais bëgg lijjanti ay gàllaaj bëgg lijjanti parking oto bi. bëgg nekk ci soxna yi bëgg entraîner. mënul c'est impossible c'est